asalaamaaleykum wa Facebook maa leen di ñëpp sama sama fans yi ah vraiment content naa ci vidéo bi mo mujjé def ni. Ah, am plus de 124000 views plus de presque man na presque ay 2000 shares ñu ko donc mais li la you know deug la rek Deug moom boko ko mom moom ku ko dégg ku ne dina ci gis bopam. donc loolu ma maa leen di sante di leen kërëm bu baax vraiment Té ma ngi remercier plus particulièrement euh, Tafa Jamila Mbeng kenn sama xarit yi nga xamanteni mom mom-mom euh, Modou Modou mom nak mo liggey liggey bu rafet bi mo ñëw jël vidéo bi duggal ko parce que daf ko daf ko gis na vraiment grand ma gis thème bi mu nek lu intéressant ma ne xaaral duggal ko donc bi ko nak affaire bi si wër na monde bi yépp taxaw tay ni j'ai plus de 125000 views am ni gaay ñu may wo partout dans le monde di ma ay message di ma tégal né ma dañ ma def référence ak dañu bëgg may ay thème di leen tegal wala yoy non donc ma ngi sant rek di leen gërëm té xamné tam aussi euh, xel du doy te li rek lañ soxla won dëgg dëgg neexul mais euh, bu ñu ko waxee rek ku ko déglu dina ci gis boppam xam ne lii rek mooy dëgg daal te comme ñun euh, au Sénégal on a tendance ñemewuñu wax dëgg parce que et boo gisee vidéo bi sax siw nii mooy ñu bëri dafa leen metti woon mais ñemewuñu ko wax donc soxla na ay nit ñu mel ñi man yoo xam te ni am nañ sañ-sañ ñoo taxaw wax leen ko ñoom ñoo xam seen opinion lu ñu ko mën lu ñu ko mën a gisee compté wul de façon nañu xam ne lii mooy dëgg comme ça ñu mën a rectifier yenn erreur yu bëri yoo ni ñi ñaa ngi koy def problème yëpp loolu la donc ma lañ ci sant leen ci gërëm donc limay def rek moy comme ñu on est à l'extérieur tout le temps dañuy liggéey du ñu am temps bo xolé man même man say ma nekk sama liggéey kay sax ci la mën def vidéo parce que may nga kër ga damay sonn du mën def euh, ay vidéo la plupart donc damay def légui chaque euh, fin du mois ma génn ben thème donc amna ay thèmes yu bëri yo xamné ne proposé nañ ma actuellement ni mais <coughs> xamna thème bi may jël ni nii mooy euh, ndeysaan sam ben xet bu baax bu nek fi à New York mo moo ma jox thème bi donc maa ngi koy dédicacal thème bi ci ci moom donc tey nii li ma leen di andil mooy waxu euh, la famille sénégalaise nan la ñuy dundee mais loo xamante ni kenn ñemewu ko wax te dinañ ko wax man moom maa leen fi nekkal seen avocat thème boo leen am boo xamante ni bu ngeen ko débat man boo leen ko waxee naa ci génne vidéo donc tey fi may ñëw mooy euh, la fami sénégalaise da nga gis benn fa ci benn famille la plupart famille boo gis kenn moo ci liggéey ñëpp bëgg toog yaakaar ci ñoom ci moom ci benn nit Me loolu bo ame, me réussite réussite mënul am Me because you want to go nema ma I don't know the key of success but the key of failure is trying to please everybody mooy xamul chabi, réussite mais chabi défaite mom. mooy ngay jéem a dimbale ñëpp te imagine toi famille family nga am fa ay cinq six sept personnes kenn liggéey ñu jël yëpp wéer wéer ko ci benn nit kooku mais loolu dafa metti ñun Sénégalais dañu war a lu yomb lii la waxati chaque fois bàyyi leen lu yomb am leen jom am leen am leen fayda man tay su fekke man rek semai liggey sama keur sama sama frère yi fa nek ak sama sœur kenn nangul liggey mais mais dina len yeeram du ma leen mën a seetaan boo woowee wax ah say frère la dimbal len ah say sœur lañ dimbal len mais nga ñun nek ay ponkolu mam yalla nga xamné mën nañ dem liggey a commencer par sun doomi yi si boo seen bopp def lolou nangu ñu liggéey nangu ñu def dara duñ nangoo jàngalo buñu jàng am diplôme ñu nekk fa di taamu duma def li duma def mais mo tane nga dem jug liggéey mo tane ñaara mën kenn ñett du bari da ngeen di jug liggéey ngeen bu len tok di xaar ñun on a des dirigeants yoo xam ne je vais pas généraliser mais la plupart de nos dirigeants ils sont incompétents moo au Sénégal maintenant mais Sénégal am nañu ay ressources yoo xam ne mën nañ fa liggéey xanaa xamoo réussite xanaa moo réussite lépp ci xel la tubaab nee na la richesse c'est l'exploitation de ses idées quel bon homme xalaat bo am boko utiliser nga réussir man nga nek cordonnier nga réussir man nga nek un jardinier nga réussir xana gisoo xolo xolo xolo Kentucky Fried Chicken aux États-Unis waji ji ginaar la doon jaay di saf Moussa saaf benn jour mu ñëw mu génne ben ben benn benn recette recette mu ne xaaral ma def recette bi def jaxase ko kay farine non non la siwee nekk multimilliardaire ba tey ni may wax ak yow ni tay amna na kenn ku ko daaneel cig filay muy tudu tudd Pruitt monsieur Pruitt Cathy Pruitt bu muy dé daw ni la dé wàcc na dee milliards et des milliards man demoon naa ci ci ci enterrement parce que may ngi doon ci ben compagnie bo xamné euh euh dañuy defar ay fleurs fleurs man mako yob mais wàcc na fi des milliards et des moom tamit ginnaaw la don saf muy jaay muy def ay ay ay ay sandwich yor benn boutique bu ndaw noonu la def ba mu nekk multimilliardaire moom ci boppam moo daanee McDonald donc liggéey rek mooy wóor moo wóor ci àdduna bàyyi leen ñun famille Sénégal li ngeen di def nii li moo tax dañuy continuer di pauvre kenn mooy liggéey ñëpp bëgg a ñëw toog wéeru ko yooyu la ñu war a bàyyi nañu bàyyi loolu te ku nekk jug liggéey da nga gis ay ponkol maam yàlla nekk ci biir kër xoola jeunes yi ah yow yàlla mu ngi la may lépp Yo yo, xam nga tay ni par exemple comme li mo waxoon sa benen vidéo bi ñi ñaan yi muy manam ñi nga xam te dañoo son nañ ko yeeral ñoo dañ lañ koy defal mais ap ya fous ponkol bu toll ni yow ah, maro xiifuloo pato ya nga am doole nga war ngengko dem liggéey nga ko nga ko yaakaar ci nit ñi ñoom dañoo bëgg lu yomb xol li la li la yalla wax ci alquran bo de xam la la laaj suma la tus idin anin naim bu bés bobu yalla dina laaj bànneex yu mu la jox ndax ndax sante nga ko sa am nañu bari ñu gumba yaa ngi nooy am ñoo xam ne dee nañu yaa ngi wax am ñoo xam ne dañoo muuma yaa ngi dégg am ñoo xam ne dañoo tëx yaa ngi dox am ñoo xam ne dañoo lafañ loolu rek ab doy na sant waxuma sax mu tegal la ci après alal donc doole boobu mu ngi noonu alal boo bëgg a am da nga koy teg ci alquran laxan xalaxanaa insaana fii kabat damaa sàkk nit pour mu liggéey du la wàcc mukk tànk deewoo donc tubaab bi tey bu ñu toog di soxoraan da nga gis tubaab bi nga gis seen dëkk yi mu rafet ni ñoom lépp ñu naan voilà tubaab bi ñoom dañoo am chance ñoo ñu loolu amul man ñëw naa fi Amérique def naa fi 18 ans mais tubaab lepp lu mu am nekk te day liggéey ba dof bu len yakane nak nag euh, bi ngeen di gis di da nga ñëw rek for ko musu leen voyager te muñu la mun ñu la kenn mun la ko expliquer ba nga comprendre ko il faut nga ñëw fi pour nga xam ko loolu kenn mu ko expliquer donc donc tey nii amul len luy fay lu dul liggéey soo jugee nga xey nga nga dem liggéey ñaara man kenn ñett du bari ben famille ñep ben famille kenn liggéey bëgg a ñep wala ñaar mais koku waxuma sa non seulement koku du réussir yeen tamit do leen réussir ba ca ngeen bay ngeen jog yeen ñep ngeen liggé sen problème yeen a yeen a ko mëna a régler da nga gis ay ponkalu mam yalla a commencé suñu doom yi seen bopp def a commencé par man sama dom. ñoy nekk ci mbedd yi di solo ba rafet di yew mën nañ dem entraînement di yëkëti ay poids nga gis ñu toll fu la né mais poids man mais poids poids mais ngay entraîner di def yooyu yëpp mais doole doole pour liggéey la doole du pour ay xex wala di jaay tar mais bala mo neex jëlal sa doole bobu nga dem liggéey ko ñëw andi dugul dugul sa bi kër da ngay ñu sol ay pantalon yo xamne mu ngi jar 30000 sol dal yo xamne 80 wala 100000 yo portable yu jar 100000 wala 150000 sol sen t-shirt yo xamne yu jar ay 7000 8000 bo mille boo leen laajoon deux mille mu ñu la ko génneel xoolal jigéen yi jaay disket sol sen Victoria Secret yo sen sen sac Gucci di metti di gondi sol sen do sen pantalon know, yu nek à la mode du serre yo yep sol yo sen portable sen iPad ah di metti booleen leen laajoon léegi benn dix mille quinze mille francs vingt mille amuñu ko kenn angu ci liggéey ku ci jàng ba am sa diplôme nga ñëw ngay ngay casse de euh, awma liggéey awma liggéey gouvernement fii ni gars du duñ jël affaire da nga lijjate tu ne ci su kenn bul compter ci kenn compter ci yàlla yàlla mooy joxe. yàlla mooy joxe da ngay gëm sa bopp boo gëmee sa bopp un ngay commencé ba dem lépp xanaa xamoo ci liggéey lan la wërsëg di fekkee man ba ma doon liggéey Sénégal lañ ma doon fay ñemewu ma ko sax wax. mais ci la ma sama wërsëg bi yëpp fekkee ba ni ma ñëwee fi donc mom la lay expliquer nit da ngay liggéey mais il faut ambitieux tay buma ma xam ne par exemple am sama bac mais je sais très bien te amna yeen liggéey bu ma ko def parce que lolu sa xel mo la ko jox ci xel la rek da nga amna bac liggéey bi du ma ko def mais da ngay dem def liggéey bo ba kéro ngay am li la gënal parce que la richesse c'est l'exploitation de ses idées quand tu as des idées tu les exploites c'est comme ça que tu deviens riche mais du xaliss bi tay mun nga am xaliss wa ñu ñox la liggéey sa té do téki bëri na fi mais da am se idée nga exploité ko mu jural la xaalis mu mu mu jural la donc famille yi nañu bàyyi di taxawaalu jeunes yi am leen jom xoolal jeunes yi ma yi ma xam am na ci ay ñoo xam te ne maa ngi toog di wax ak ñoom Facebook dañoo jéggi jaay ay Libye ak Portugal fu leen jaar ba ba ba egg ci bitim réew rek bëgg a gis naa ñoo xam ne ay jeunes de rien du tu am na ci kenn koo xam ne waxtaan ak moom ba mu expliqué woon ma sa kër bu muy tabax xale bu ndaw yéen ngeen nekk foofu bëgg leen def dara ah loolu ñooñu jom rek moo tax ñu ñu tukki. legi ñom ñu ñew seen morom seen bopp ñoo leen di wo di leen ñaan bay leen ñaan te ngeen bay di wëru ci doomu adama ah li moy tax pauvreté du mësa dañ au Sénégal donc ñun c'est une nouvelle génération dañoo bëgg dindi loolu dañoo bëgg dindi loolu te amna ci ay thème yu bëre xamni dina ko duggal dañoo wara nek référence dañu ne war nekk référence référence sax li ñu koy nekkee nag mooy liggéey seul le travail bu leen ni gis ñu ñu nekk à l'échec nga yaakaar ne suñu ko for bu leen gis seen sœur wala seen frère yoo xam ne ñu ngi Sénégal di liggéey yaakaar ne dafa dafa yomb yombul ñu ngi liggéey bay bëgg a dee pour pour di leen jàppale donc am leen jom ngeen jóge liggéey yërëm leen seen ndey yi yërëm leen seen bay yi boo leen amee barke si seen ndey la ak seen baay yi loo am lu mu tuuti nga ñëw ne ko yaay am papa am tekki ngay def man de awma dërëm boo xam dina naa ko lekk te ci may sama yaay sa mbay na genn aduna mu man moom moo ñaan amul julli bu mu dul jul te ko ñaanal donc lolu kese la fa la nit ñi di rawante mais ngay tok ñu lay may ñu lay ngay tok ñu lay may do meuse a réussir wala nga toog ne dëkk bi day metti do meuse a réussir man ma la wax lolu jugle ngeen liggey am leen jom am leen ful am leen fayda te ngeen bay yaakaar ci ci nit ñi wala ngeen di blâmer kenen am ngeen yalla may na leen dem la ngeen liggey bo leen liggey lepp li ngeen bëgg am mën ngeen ko am ci liggey liggey rek moy fay tuba bi lo tax ñu raw ñu ñu ngi nii ko ci kenn amul Trump amul Obama amul kenen ñeppay liggey ñom ñi nga man ma ngi ni ci 47 ans ma ngi ni di liggey ba tay ni osuma la yow mi nga nek xalé bu ndaw ah what's wrong with you juwol nga liggey ngeen bayyi ñaan ngeen bayyi solo bi ngeen bayyi nos bi mais ku neex ku ku xiifa neex a toggal mais nos bala mo gën neex sax ngam xaliss donc message bi may lancer rek li la yewul len yewul len ngeen bayyi ngeen bayyi di caaxaan liggéey seul le travail boo liggéey lépp li nga bëgg di ko am te ñëpp a lay respecté tout le monde te respecte y' a pas de sot métier man tey ni dawal laa bëgg bi ma ñëw seen am Amérique soo ma dawal laa def jeex na ni ku nekk am nga sa talent xoolal fi sa talent nekk nga utiliser ko man loolu rek laay wax foofu sa talent nekk utiliser ko bu fekkee jàng la demal jàng ji boo amee say diplôme nga xool liggéey bi nga bëgg a def bu fekkee par exemple menuisier la dem def ko bu fekkee menuisier métallique def ko bu fekkee nga bëgg demal nga jaay lépp loo yëngatu bu yàggee di nga ci tekki def ko à cent pour cent bul caaxaan loolu kese la donc sama message bi mom lay, mom lay lancé à toutes les Séné tous les sénégalais partout fu ñu dans le monde ak surtout ñu nekk au Sénégal ñoo xam te ni kenn mooy liggéey wala ñu nekk à l'extérieur kenn mooy liggéey ñu ngi may woo di joy, lañ la la nekk seen xol yëpp ñemee ñu wax. donc tay ni, man ma représenté ñoo ñëpp di lan tegal donc nañu am jom am fulla am fayda. te bu soobee incha allah euh, donc xam naa fi laa yemale waxtaan bi donc affaire bi lii la rek dañuy jéem a seulement changer idée yi ñu jëm te tamit si maa gis ñu bëri sama vidéo bee ñu ngi doon nekk fa di ma xas ak yooyu loolu yëpp amul solo ak affaire ñun wuñu affaire négatif dañuy xool Nous luy progresser une génération yi parce que génie di ñëw nii ñoom ñooy nekk avenir donc ñun suñu gens yu mel nii la soxla ñoo xam te ñooy changer situation bi donc lu négatif man du ma ko déglu j'écoute seulement la nga xam te c'est positif te ñi ma bëgg nekk derrière moi ils sont plus de cent vingt donc loolu rek doy na ñenn nga xam te ñu ngi critiquer ñooñu compté wuñu donc affaire je lance un appel à tous les jeunes à tous les gens tous les sénégalais ak foofu à tous les africains levez-vous et travaillez seul le travail paye liguey len am len ful am len fayda talal baxul talal baxul ñaan baxul wër ci doomu adama baxul as gor day xamne as gor la da ngay liguey ku liguey nak ku la dàq liggéey sax moo la putiyaaba kii julli gudd ak bëccëg ak taxaw di liguey kok xam nga ni ki taxaw di liggéey moo la xam nga loolu sax tax yalla da digle donc et puis boy liguey aussi day tax day tax da ngay am da ngay day tax da ngay tel responsable ay ay bêtises yu ci de gens qui yi ñaata Sénégal ñu ngi ci yambaay ngi ñu ngi ngi am ci mais parce que ñoo ko seen bopp dañ naan dëkk bi dafa metti mais fépp metti Amérique bi ma nekk ni mais mu gens qui sont ma vidéo ma dem dugg ci wut bi di la di la yi ñu fi bëri ñu xamné amuñu dara ñi mais bu leen gis télé ñu leen di won immeuble nga am ngi dañoo donc suñu situation ñun rek ñoko mëna régler jug leen ngeen liggéey ngeen am fulla am fayda yërëm leen seen yaay yi riidallah fi riidal waalidayni ngeureumal yalla mi ci si ngërëmal ñaari wayjur wa soxtullah fi soxtal waalidayni sanjam yalla mi ci sanjam ñaari wayjur manam meram yalla sa ñaari wayjur bu la gërëmee da ngay tek ci aduna yëreum leen loolu kese ma man loolu je lance un appel à tout le monde yewu leen ngeen nango liggé voilà affaire bi affaire bi loolu donc xel dafa war a dafa rafet ngeen tok ngeen ngeen xalat ngeen xol li ngeen bëgg def seen aduna lu amul lo mënu def ci jeune karaw gi wéxagul lu ne xaj ca lepp lo bëgg mën nga ko am soo bëggee am auto jugul nga liggéey bo liggéey bu yagge di nga am auto bo bëgge am engin jugul nga liggéey bu yagge di nga am engin so bëgge am moto liggéey bu yagge di nga am moto so bëgge kër jugul liggéey ndànk-ndànk la bo gisé montagne yent bañ ko laajee montagne dañ ko ne li montagne dal la ñu plaaj pep souf la bu tégaloo ba ba toll montagne donc boy liggéey nga jël di dajé tout tout tout non ngay da ba réaliser lepp sa xaalis da boo ko da ngay xam foo koy bul jël sa xaalis nga jot ko ci dugal ci ay futilité ay soloog yooyu Sénégal dañoo gëm sanse te sanse tekkiwul dara sanse taxul nga dem ni da ngay teg xel jamono day gën di metti donc da ngay couvrir sa bopp alal rek a wóor boo amee alal saay ñëpp a lay topp da ngay xool sax boo nekkee ci kër sa liggéey nga am alal yow yaa yow sa kàddu mooy compté boo amul xalaa moo xale mag dina nekk xale boo demee ba nekk mag te amoo dara nga fooy sa jeunesse nga dem ba nekk mag amoo dara mais da ngay mujj nekk xale parce say say doom say morom doom ñoo lay yónni ngay nga ngay ngay ngay kebal si ñoom xaalis ñu lay jox donc nekk nga xale duñ la sax faale xaalis boo ko amee ñëpp lay respecté donc jug ngeen wut xaalis gars yi respecté leen jug la ngeen wut xaalis ngeen teral seen day teral seen baat teral seen bopp yéen seen bopp donc message baa ngi nii donc inshallah allah euh, ba benen yoon xamna benen beneen yoon aussi dina amat benen thème bo xamanteni bu intéressant moko yeen tam bo len ci amé lo xamanteni bo len amé ay thèmes yo xamanteni bu ngeen bu ngeen mako wax ngeen wax mako inshallah incha allah nañ ko débat donc euh, mang ngi leen di nuyu yeb di leen sante di leen jajeufal waaye jajeufal inshallah allah ba beneen wasalaam